seq man ak moom dañu yaakaaroon anonymité la mhm. mais ma wax la tey benn anecdote mhm. alaaji Mansour Mbaye mu ngi may dégg mhm. ndax moo ko fekkee moom moo toog Gaston woo ma téléphone may tëgg euh, Bombardier ak Yékini mu ne ma nañ daje sama boutique ville li ngay sol man maa la ko bëgg jox ma ñëw ba ville foofu jour boobu war na ma ne la Hadj Mansour Mbaye moo fa nekkoon ñoom ñaar kase man moom ak yàlla mhm. costume bi ma sol jour boobu muy rayee boobu Gaston moo ma ko jox kon xam nga bu doon animosité am na mhm. du ma jox yére ma sol déedéet déedéet kon loolu anecdote bu ma doon wax la mhm. di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne àdduna nii rek la àdduna moom nii rek la euh, mooy li may wax rek nañ delloo ñun ñëpp suñu xel ci suñu borom ndax sëñ Touba ba muy dem géej di sànni nit ñi géej la ñu gis mhm. waaye sëñ Tuubaa yàlla la gis mhm. mu lalee der ba mu taxaw mhm. kon nañ delloo suñu bopp ci yàlla xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay di ñaanal ñëpp jàmm tawfeex sutura xéewal boo amee kàddu yooyu dénk njabootu Gaston waaye boo amee kàddu yooyu dénk ki nga xam ni moom la jox lenge yi muy makkan boo amee kàddu yooyu dénkee njaboot yan kàddu la non kàddu yi moom lenn rek la euh, seen baay am na empreinte bu marqué Sénégal loolu avantage bu mag la ci ñoom mhm. ndax tey boo ne man doomu Gaston Mbengue laa fii Sénégal mhm. am naa yaakaar ne nit ñi dina am cër bu ñu la jox mhm. perpétuer nag liggéey bi nga xamante ne moom la fi doon def ndax loolu lu am solo la euh, lu am solo la te wax dëgg yàlla makaan gis naa ne jàmbaar la ndax mu ngi bay waaram ñun ñëpp nañ ko jàppale lii rek encore une fois day wone ne Eh, ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi la ma ko waxoon ci déju Pape Aziz Ndiaye rek mm. ne ko bu la dara jaral xëccoo bu la mm. dara jaral dara mm. ndax la ma la wax sànq rek lépp loo gis boo ci gisee yàlla doo sonn mm-hmm. ndax tey boo jàkkaarloog gaynde gis gaynde yàlla bàyyi laa gaynde yi waaye boo jàkkaarloog suñu borom ne gaynde yii yàlla la mm-hmm. boo ko fa tegee rek mm-hmm. da ngay gis ne yàlla la yàlla mooy ñëwal boppam daal la aar daal di la suturaal mais boo gisee gaynde nag mu bàyyi la ak gaynde mhm. gaynde yi defanteeg yow mhm. waaye gis fa yàlla rek mhm. incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf ko jullit rek ñu fas yéene denc suñu papa ñu ñaan yàlla comme jëm ko jàllee xalifam bi ñaan ko xalifam bi makan ñu ko dañu mën a wax ci moom ah suñu papa ji baax la rek papa ji baax la ndax daje nañ fu ne ci àdduna daje nañ Égypte daje France daje fu ne ci àdduna yàlla na ko yàlla yërëm xaaral ak lan mooy sa relation ak moom ñaar boo fi teewee day waree ni xëy na amoon ah, ngeen relation sama papa la woon rek ñu doon diggante papa ak doom rek makan nag laa gënoon miin makan mooy sama morom mm-hmm. di ko jaale makan di ko jaale famille di jaale cek jaale ko sama mm-hmm. frère Abdou Aziz Ndiaye mm-hmm. ndax bu ma xamante woon ñu ne moom gannaaw yàlla Aziz Ndiaye moo tax ñu ne ñu yëg ni feebar bu yàgg moo ko daaneloon ndax durant li mu feebar yëpp daan nga dégganteeg moom wala dem naa ba këram mamel dem a dem a évacué di yóbbu France ñaama maa ngi ñu bokk Air Sénégal ak papa ak yaayu Antoine Diome mhm. maman Léna ñu ñett ñu bokk Air Sénégal wàcc Paris muy ba ñu ko njëkk a boobu nag boobu weesoo ñëwaat naa fekk fii këram Mamel wóolu na ma am nen doom bu doon yëngu ci wàllum euh, euh, wàllum social media mhm. mu wóolu ma ma ñëw ba ma kii sama doom la a bokk liggéey liggéey dama bëgg nga jàppale ko mhm. doomam bu jigéen mhm. boobu laa ko mujjee gis waaw maa koy fàttaliku baax Mamel la woon benn dimanche la woon la ma convoqué foofu ci këram Mamel mu ngi tëdd sax ci kaw lal bi ne daal ñu branché ko fiis mu ne ko père muy Paris muy Égypte muy Tunisie demoon nañ monastir match benn match Sénégal bu ñu ko war a Tunisie ba ñu dóor ni monastir maag moom ñëpp fekk naa ko fa ñëpp découvrir ni nit ku dëgg woon moom Gaston ndax daan feeñ ci ay waxam waaw nit dëgg la woon nit ku ñeme woon dëgg la nit ku ñeme woon péete la bu ànd yow ñëpp dañu xam ne yow la àndal waaw nit ku dëgg loon ku ñeme péete la woon waaw di jaale tamit son excellence monsieur le président de la République monsieur Abdou Diouf woote ni <laughs> ñëpp ko woon booba dem ñu ngi woon ca bi ñu ko hôpital principal ca Mazor ba pour ñu def cérémonie euh, levée du bakkan nañ ko daan na muñ rek ndax yàlla moom yàlla jeexul na muñ rek yàlla jeexul di ko wax ni daal di ko li dal métti na lool waaye yàlla mii moom jaam yi moom moom moom jaam yi bés bu bés bés bu noppee ci jaam yi da leen di jël mhm. yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ajjam doon wàcc waaye am ci barke Cheikh Tidiane ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima est-ce que mën nañoo euh, ah, loolu ci la ko yàlla nag yàlla mi sàkkoon Gaston mën naa sàkk yeneen Gaston non merci beaucoup jaajëf yàlla yàlla euh, li ma gën a marqué ci Gaston mooy ci moment yi muy souffrir